waajtaay la waajtaay la ci bës boobu ndax bës boobu itam jawaat bien que mu ngi nekkoon en léthargie mosta raté bés boobu euh, chaque année daf ci am taxawaayu boppam ndax bañ koy door tam bokkoon na ci ay objectif am jël en charge gan yi nga xamante ne ni dañuy ñëw notamment la presse te nga xamante ne ni bu ñu ñëwee du ñu am ñu leen jël en charge ndax gan ñi dañuy bëri te souvent dañu leen di fàtte loolu bokk na ci li gën a poussé ñu former association boobu pour jël en charge mbooloo mi nga xam ne nii dañuy ñëw ci bës bu mag boobu te du ñu am ñu leen ñu leen euh, servir ñu leen toppatoo ñu leen euh, ñu leen boole ci mbir mi donc taxawaay boobu jawaat mosu see jóg bien que mu ngi nekkoon en léthargie association moo organisé conférence bi euh, ñu basé ko nag ci yar parce que dañoo gis ne yar dafa xaw a sooxe ci suñu société bi ci vingt et unième siècle bi gis nañ suñu réew lu yàggul dara li fi woon ci ay waa mois de juin ay événement yoo xamante ne neexul woon kenn boo xoolee tam lii xew ci réseau sociaux yi nga xam ne vraiment yar ñëpp a ci war a jàpp parce que xale boo ko yaree bu màggee màggaaleeg yar dina mën yar njobootam mais xale bu yaruwul bu màggee màggaaleeg ñàkk yar kooku du mën a yar njabootam te ñu gis ne ñun fa ñu màggee ak suñu ay waajur fa ñu màggee am na loo xamante ne ñun ci lañ ñu yar ci lañ ñu muul ba fu ñu dem rek ñu mën a xam ni lii vraiment am na lu mu mën a jëriñ moo tax ñu ne dañ ko waxtaanee. tey wax dëgg yàlla sant rek la ñu mën a def ndax liñ doon séentu ci bés bi yëpp gis nañ ko ci. te xat xatu temps moo ñu tënk rek mais xale yi li ñu indi woon tey pour euh, conférence bi xajul ci benn bés waaw ndax euh, mbirum éducation dafa yaatu ci Alaaji Amane Dème lim ci développé dafa bëri kon euh, macha allah liñ fi jot a développé tamit ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ndax am naa yaakaar ci ne ñu bëri dinañ ci amaale xam-xam dinañ ko ci jëlaale.